الله أكبر الله mbokki internet yi nga xam ne yéen a baaxoo seetaan 24 actu tey nag ñu nekkoon ci bëccëgu tabaski bi amoon mbégte lool nag di leen baalu àq te baalu ñépp àq tey ñu amoon suñu ndaanaan bu mag boo nga xam ne seet seet nañ ko ñu koy wax Serigne Mor Diba kan Serigne Mor Diba ñoo ngi nuyu di la ziyaare bu baax. waaw maa ngi leen di ziyaare di kontaante si yéen di kontaante Serigne Modou Lo si dalal bi ma dalal si présentation bi di nuyu sama waa koñ waa jàkka Ndiouga Kébé yëpp waa Darou Khoudoss sama ASC ASC jamono Darou Khoudoss di ziyaare ah, sama ASC ASC moom sa réew Sidi Diop capitaine ah, Kara Cissé ñëpp maa leen di di ziyaare tamit ah, sama waa koñ fa xam ne ku xam Mor Diba kan xam ne. fa la bokk muy Samb moom sin Saalum di siyaare sama gars yëpp di kontaan si yow tamit bu baax a baax waaw di leen baal àq te leen baal àq ci tabaski bi ah, añ na ba pare isaa yi si ngoon bi ñu ngi ñi sëñ Mourlo ñëw dalal kontaan naa bu baax a baax macha allah. waaw man noonu lay profité sax di nuyu Aliou sama waa koñ yaakaar jóge Kébé di nuyu Fama Sarr sama jigéen bu baax a baax ak Fatou Diop fàttewuma xadi kan ak Fat faat Diaw kon maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ak boo yi nga xam ne ñëpp ñu ngi jàkkee njuga di leen wax seen doom a ngi noonu waa tey nag ñu nekkoon ci bisu tabaski tey comme que julli nañ ba pare ñu doon laaj nan nga waajalee tabaski bi ak julli bi nan la demee woon. waaw bala maa wax dara tamit ah, dama fàtte sama benn jigéen soxna Khady Kane macha allah moom sama doom bàyyi la yàlla ñu boole man ak moom ak di nuyu yaayam soxna Nabulo moom sama Ah, soxna Koumba Lo sama yaay la macha allah soxna Issa Touré moom du ma ko fàtte yaay si yaay si yaay di sant ci sama yaay gi nga xam ne moom la juróom boppam muy soxna Koumba Diagne leen siyaare bu baax di siyaare waa Kër Sow maire ñëpp maa ngi leen siyaare di tamit ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi tamit muy Serigne Lo ah, di siyaare sama gars yi ñoom ñëpp ñu nekk si ginnaaw ñoom ñëpp maa ngi leen siyaare bu baax ah, kon tamit maanaam wàllum tabaski gi moom. moo ngi ngi si seen euh, mu mel ni tey waajtaayu tabaski bi xawoon na metti trop ndax ak fi réew mi toll nii nga xam ne corona bi xaalis xaw na manqué nga xam ne eh, dëkk bi xawoon na dëgër xawoon na dëgër si yenn côté yi nga xam ne si surtout si néew gi doole yi nga xam ne dëkk bi xawoon na dëgër si ñoom ñoom nga dundee événement boobu. waaw maanaam li fi jaar rek muy wàllum corona bi moom ku xam-xam ne toj na àdduna bi ñëpp ñaa feeñ na si borom milliardaires yi ma ñu yor ay million feeñ na si ñëpp daal waaw maanaam man nag may sant yàlla bu baax a baax parce que li tax may sant yàlla yàlla may nañu xarum tabaski ban tabaski si jàmm ak seen famille ak seen njaboot ñëpp waaw di sant parents yi ñëpp. en tout cas daal tabaski nan tabaski tabaski gu neex daal yal ah, nga xam ne tabaski bi tey jàll na si jàmm ak salaam nga xam ne tey si julli bi gis nga ñoo xamante ne nii tey sol nañ yére yu rafet yu nga xam ne seer na seeraay goo xam ne mënoon nañoo wàññi seeraay bi jox ko seeni mbokk pour ñu jënd ci ay xar yooyu noonu tey yow nan nga dunde loolu noonu. ah man de sama bopp laa laa lijjanti ndaxte nit ñi moom ah, kenn kenn xamul li bëgg daal. parce que man moom sama bopp la li ñu di ma tabaski naa si jàmm ah, samay samay samay xarit ak samay àndandoo samay nga xam ne moom la war a sol waaye yére yu seere xam naa jaaykat rek waaye man daal en tout cas jënd naa yére jëndal samay xarit a loolu moo amul monsieur moom waaw est-ce que nga yaakaar ne yenn pukkar yi nga xam ne mooy am si tabaski comme jënd yenn xar yu seer yi wala jënd yenn yére yu seer yi te te te mënoon naa gën a wàññeeku loolu nga xam ne tey boo seetloo ci Sénégal ak réew mi yëpp moom la ñuy wax loolu noo ko gisee. ni ma gisee mooy comme ni ma parce que xam nga nit ñëpp ñi kenn ku man-man ak fi nga ko jëmale waaw ñii dañoo am man-man jëmale ko fee ñii am man-man jëmale ko fee waaye man li nga xam ne mooy sama coobere bopp mooy doomu aadama yi kenn ku ne ak sa gis-gis man sama gis-gis mooy lii ma la tontu. ne la euh, man fi fi ma war a jaar ba tabaski jaar naa ba tabaski mais am kenn koo xam ne tamit bàyyi naa ko xel daal waaw. Euh, ginnaaw bi nga jaaree fi nga war a jaar yëpp ba tabaski léegi instant yi nan ngay war a dundee ngoon mu tabaski bi. ngoon tabaski bi xanaa bu xawee kii dund ma dem seet samay xarit samay am di jaamu ñi nga xam ne ñoom la ma yàlla boole ku si mel ne Serigne Saliou Diakhaté sama xarit la. bàyyilaat kan lii ma sol nii moom ko jox sama xarit la ay Kara Cissé ñoom ñëpp daal samay xarit la ku lim juum daal. waaw ñun ñëpp samay xarit lan ay Cheikh Mbène euh, pour mën a nekk ak ñoom pour dox ak ñoom jàmm ak xam seet borom bijouterie yi macha allah. foofu laa jaaree nuyuwaale sama jigéen bu baax sunu yaay Issa nga xam ne jàmbaar la trop trop trop trop wax dëgg yàlla nga xam ne Issa Touré moom nee naa jàkkee njugo bu ñu amoon ñetti jigéen ñu mel ni moom danañu am lu baree baree bari ndax mi ngi bay waaram si si lu bari si jàkkee njugo maire ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax tey bu ñu waxee pour dox nan nga gisee ngoonu tabaski bi mooy corona bi fi mu toll ak nit ñi war a toog seen kër ñu war a baalonte àq loolu moo tax ma ne laaj nan nga war a dundee ngoon gi tey dangay ngay baalu àq wala da ngay def rester chez vous. rester moom du si am ndaxte li xa li tax man na du si am ah, mooy am na ñoo xam ne ñoom la yàlla boole ñu samay am di jàmm yow xam nga faaw ma dem si ñoom. comme maire bi nga wax muy soxna Issa Touré kooku moom xam ne nu ma nu ma def dinaa dem këram moom mun ma ñàkk dem këram daal waaw recette recette moom du si am daal waaw faaw ma dem seet sama yi am di jaam xam nga ah, bëloo ji daal mooy waaw kon faaw nga dem seeti am di jaam yi bëloo ji mais tey ndéwénal na nag tey da ko joxe de. ndéwénal waaw dégg la ndéwénal moom xam ne ñoom laa ko war ñi nga xam ne ñoom laa ko seexal la ma yàlla booleel ma war nañoo tey lan ngay wax si site bi nga xam ne mooy 24actu. waaw ah, ñii moom macha allah moom 24actu moom ah, ku leen xam xam ne ñu am talent la te ñu a bàyyi xel lan tamit man daal naa si 24actu daal yàlla xam na loolu li ma leen ñaanal li mu ñoo xam yal nañu ko yàlla defal si barkeb Cheikh Abdourahmane Mbacké. waaw ñoom ah, si barkeb Serigne Saliou yàlla jàppale leen teg leen loxo. waaw pour a dem kon tey ñu lay laaj ci tabaski. Euh, comme année yi nga xam ne moo jàlloon ak ak ak ak année deux mille de mille vingt bi nga xam ne xaw na wute torop torop tey nan nga gisee tabaski yële jàlloon ak ak tabaski bii nii. yaa ngi laaj du euh, du garaaw ndaxte tabaski yële jàll euh, temps nekk na loo xam ne su si wax sax ay réew damay jàpp quoi <laughs> waaw li nga xam ne moom lañ daa def mooy xam nga sañse xëy suba sangu. Euh, dem julli ji ñëw tëral sunu xar léegi bu ñu paree ndéwénal moom mun koy laaj moom si paa bi lañ koy lañ koy ñu ndéwénal ñu dem suñu mère bi mère bi jox ñu ndéwénal ñu dem suñu mag yu góor suñu frère ñu jox ñu ndéwénal ñu commencé génn dugg si koñ yi waaw di laajte ndéwénal waaye nekk na loo xam ne daal ah, lu neex la daal lu neex la daal. waaw lu neex la est-ce que si si wàllu ndéwénal boobu noonu nga dugg noonu est mus nga see am bis bu nga xamante ni sooy boo ko fàttalikoo rek ay ree da lay jàpp wala bis boo xam ne ko fàttalikoo rek da ngay da ngay jooy. <laughs> waaw bis boo xam ne bis boobu maa ngi doon nekk si relation xale daal. comme relation xale comme génn xale euh, guddi boobu noonu ëmb dara loo xam ne man naa kaa sol pour fatoo xale bu jigéen bi nga xam ne la hmm, bi xale bu jigéen man lay xaar pour ma sol euh, amul ma sol ma xëj sama xarit ba mu ma ah tey saa waay am loo xam ne mën naa kaa sol sa xale bu jigéen nee na ñu dem fatoo man ak moom jur sax may tudd turam léegi sàmm si la dem ne ma xaar ma ñëw ma xaar ko mu ba euh, hôpital jéem léegi si la dem jël fa benn jiin ak benn bëri ak benn sinap mooy sinap xaar yi ak benn ay ay takk ñoo jox ma sa xale bi jigéen <laughs> moom loolu xoromoon na trop mais tabaski ren bi nga xam ne corona bi xaw na xaw yenn doy yi nga xam ne ak par rapport yi nga xam ne tabaski yi nga xam ne moo daan am nga xam ne bu ngoon musaana jot xale yi dañ daan solu di def ay ay ay meew wala ñuy def yenn xeetu petit soirée yooyu noonu est nga yaakaar ne ren loolu dina am. Euh, maanaam temps bu ne euh, mu ne ak ni muy doxee ndaxte li tax léegi xale yi ñëpp màgg presque xale amatul man na la wax ne xale amatul ndaxte bu njëkk da nga daa gis xale yi nekk fii si mbedd yi di lañ déwénal xam nga di yàqal xam nga mooy loolu comme comme comme ay ay kii rek boon comme ni gën a daa yàqalante yooyu noonu danaa dem soog si tamit yi parce que euh, maa ngi fàttaliku lu yàgg loo xam ne mas na déwénal yi ba ne man ak samay copain ay Baysal jaxate ay maalaw ay yooyu noonu dara saw léegi si lañ ñu kar jël seen seen bi yëpp seen déwénal bi yëpp nga xam ne bi ñuy ñibbi bi ñu ah, dem loo xam ne comme mën ngaa égaler kër ga daal waaw kon loolu tax man que xale léegi ñoom taw ñu yi buñ bu buñ añee pare rek ñu tal leneen def ba dajale jënd bal dem après après Tabaski gi xam naa ban bi leen gën a si yooyu yooyu noonu waaw est-ce que yaakaar ne xale yi bàyyiwul cosaanu cosaanu tabaski nga xam ne bu njëkk da daan am ay lu mel ni ay fër xeet yu demee noonu léegi nga xam ne xale yi gisatoo benn xale bi nga xamee dafa day day fër wala muy def yenn yi nga xam ne tabaski bu njëkk da am ay fër xam nga xam ne bu musaan sa biir dañ la daan defal dóom sa biir beeg yooyu noonu est-ce yooyu nga xam ne yooyu mi ngi amati wala yooyu <laughs> eh, ma amatul parce que xale léegi ñoom ñoom ñoo am talent xale léegi ñoom euh, da gis sax sukk sukk si ndab bi di añ ba si yàgg naan morom bi li nga lekk doy na ay boobu waaw loolu loolu day am daal waaw moo tax instant yii fër yombatul daal fër moom wax dëgg yàlla yombatul si jamono yi léegi bii nii. tey nan nga dundee tabaski bi ak famille bi paaye mère yi. waaw maanaam ni ma dundee ak tabaski bi moom tabaski naa ak sama papa ah, ak sama mag Aram Aram Gueye macha allah moom moom togg na neex ñu tabaski si jàmm ak sama benn yaay ah, muy mère Ndiaye. moom tamit maa sant di sant sama jàmbaar Bara Fall ah, ah, Soda ak di sant tamit ah, Baye parce que tabaski naan si jàmm macha tey boo doon joxee benn conseil tey si nga xam ne mooy xale yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy nekk si si jamono bii ñu toll nii lan nga leen di jox conseil. léeg-léegi am ñu rek parce que. comme li euh, suñu taxaa di wax waxee mu ne yaafus xañewul góor-góor bu mayewul mais tamit li suñu borom euh, bind si jiw yi ala kulli aada bala ngaa dee duñ si jot comme daal mais ñu xam ne yoonu góor du gaaw yoonu ndaw surtout yoonu ndaw yàlla mooy maye fii doomu aadama mooy doomu aadama kenn benn doomu aadama mayul kenn yàlla mooy maye te bis bu sa ndey liggéeyee sa kër baay rek am naa yaakaar ne doo yót duñ si jot waaw. kon buñ topp benn doomu aadama yaakaar ne kii mën nañoo may dara waaw li may laajee jeunes ñu xam ne yàlla moo yor te nga xam ne yàlla moo ko yor boo boo xam ne moom ngay teg say bët teg comme lay may am na doomu aadama waaw ñu loolu am na solo trop kon kon ñoo lay wax nga tàggoo lan ngay wax mbokk yi internet ak lan ngay tàggoo. waaw li may wax mbokk yi wax rek. waaw maanaam di leen sant bu baax a baax di sant euh, cameraman yi euh, maa ngi sant bu baax a baax di sant waa 24actu ñun ñëpp maa ngi parce que lii am na solo trop euh, Tabaski ba xam ne nga waxtaan si émission am na solo daal maa ngi leen bu baax a baax comme ni muy sëriñ Abdourahmane di leen ñaanal yàlla teg leen waaw di nuyu tamit nga xam ne fa laa jógee muy Girima ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu sama gars yi fa nekkoon Daara Baye Mor Sida ñoom ñëpp maa ngi leen maa ngi nuyu ñëpp daal ku leen juum daal maa ngi nuyu sama gars yi. amiin waaw jërëjëf mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen a doon ànd di seetaan 24 actu ñoo ngi leen di joxaat dig daje si kanam tuuti ñu amaat suñu beneen ndaanaan bi nga xam ne moom la ñuy seeti kon ci kanam.